وجاد كل بأمن وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك لدي البزير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وشعبه يا من جعل الغراب رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وأفراد جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين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 سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بوكي نيغي لين دي نويو بو باخ دي لين زياري كي سين آه، جوتاي بو ماك بي نيو تودي بحر الاسرار نيو ديتي وقتاني باتين اسرار اك خم خم يو ام سولو ييغا خامني موم لا في سوني ماك ني بايي ñu jële ko ci alquran ak sunna euh, ñu di leen ko defal nag samedi bu jot ci waxtu wi tey nag euh, ñu dellu si waat ñuy ñaanal rekk suñu réew mii di Sénégal yàlla def fi jàmm def ko ci àdduna bi def ko ci réewu jullit yépp euh, ñi ngi ñaan li nga xam ne moo lëmbee àdduna bi muy mbas mii fi ne nga xam ne ku ko wax ak ku ko waxul yépp ku ne xam na ne tënk nanu tënk na àdduna bi waaye nag ñu di leen fàttali ne rek jullit amul lu dul ñaan ndax ki nga xam ne mooy suñu royuwaay mu yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo wax ne adduwaawu silaahul mumin ñaan mooy ngànnaayu jullit kon nañuy ñaan te bàyyi ñun waa Sénégal nag waruñoo werante ñaan ndax ku gis àdduna bi nu ni mu tëddee ak jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci àdduna bi waxuma ne ñun amuñu ci waaye nag tane nañ ci kon nag ñuy ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dolli te teggil ñu natt yi fi nekk ak xat-xat yi ba ku nekk mën a delluwaat ci sa sago tey nag mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci ñaari mbir bi ci jiitu mooy luy toj liggéey ak luy yàq liggéey moo xam ci doomu aadama la wala ci kër la wala ci alalam ju mu yor ndax àdduna moo baaxoo noonu kuy dund faaw nga ngay am yenn saay ay jafeñ-jafeñ yenn saa yi nga am jafeñ-jafeñ boo xam ne ci wàllu rab la ndax sun borom dañoo bind bind leen te yenn saa yi ñu ñuy indil ay gàllankoor am loo xam nit doomu aadama moo koy teg moromu nitam yooyu yépp nag bu amee am na saafara ci wàllu ñaan ak wàllu alquran beneen bi ci des mooy bu ñaareel bi mooy koo xam ne dafa ñàkk ay mbiram maanaam dafa daan am alal ba amatu ko wala mu nekkoon ci palaas ba ñàkk ko wala mu nekkoon commerçant ba daanu wala mu yoroon nguur sax ba ñàkk nguur ga mu bëgg cee jotaat kooku danañ ci ñëw mooy ñaareel bi euh, bu njëkk bi nag muy wàllu liggéey képp koo xam ne da am kër goo xam ne dañ ko yàq wala place wala yow ci sa bop nga jàpp ne dañ la yàq koku da ngay bind ba'da us billahi minash sheytaan rajim bismillahir rahmanir rahim da ngay bind fa sa yak fi kahumullah wa huwa samiul alim ñaata yon ñet yon nga koy bind so pare nga tek ci fallahu khayru hifsan wa huwa arhamur rahimin moom itam ñetti yoon nga tek ci xulnaa yaa naarul kuni barran wa salaaman ala ibrahima ñetti yoon soo paree nga teg ci wa araadu kaydan fa jaalnaakum laxsarina wa araadu kaydan fa jaalnaahum laxsarina ñaata yoon moom itam ñetti yoon nga koy bind su ko defee nag nga teg ci benn musallasu Xazaali bi ñépp xam nga xam ne dafay duggee batadu sax ju waaxu ñi xam xaatim xam nañ ko moom xaatim bi benn yoon nga koy bind su ko defee nag dangay wut juróom-ñeenti xeer juróom xeer ngay wut nga raxas xeer yi ba mu set nga def ko ci saafara bi bu fekkee yow ci sa bopp la waa da koy sangoo juróom-ñeenti fan nga dellu ko bindaat nag comme nii mako waxe won fa sayakfikuhumullahu wa huwa samil alim ñetti yon fa allahu khairu xifsan wa huwa arhamur rahimina ñetti yon qulna ya naaru bardan wa salaamu ala Ibrahim ñetti yon wa aradu kaydan faj'alnahum lakhsarin laxsarina ñetti yoon nga bind khatim bi nak ben yon su ko defé nak nga defat ko téré nga su keur la it danga koy bind def ko saafara ak juróom-ñeenti xeer nga wër kër gi nga sotti ko ci bam mu daj wala palaas bi su ko defee nag nga bindaat ko nga def ko ci biteel nga gas place bi ba mu xóot nga suul ko ci wala kër ga incha allahu kooku bu fekkee liggéey moo fa nekkoon di fa yàq walla rab la wala seytaane la yàlla dina la ci musal bu soobee yàlla kon loolu loolu mooy bi nga xam ne mooy bu njëkk bi defe naa ne dana leer ci mbokk euh, noppi nit ñu bare bare ndax ni ma ko waxee defe naa ne defe naa ne leer na kon nag ñu ñëw ci mu ñaareel bi bu ñaareel bi nag moom moom itam lu am solo la ci wàllu koo xam ne dafa amoon ba amatul wala mu amoon dara ñàkk ko mu bëgg koo dabu kooku nii lay def dafay bàyyi ba bisu dimaas wala bisu altine ñaar bis yooyu rek lañ ko mën a bind su ko defee mu dem ca sóoratu yaasin mu bind inna nahnu nuhyil mawte wa naktubu ma xaddamu wa asaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin moom daf koy bind juróom-ñaari yoon la koy bind su ko defee daf koy fanaanal ci biti moom nag am na xaatim bu muy àndal waaye su mënul xaatim bi rek euh, na bind lii mu fanaanal ko ci bitti bitti yi tiim ko su xëyee suba nag mu jël ko di ko jëfandikoo juróom-ñaari fan la koy sangoo incha allahu taala kooku lépp lu mu ñàkkoon yàlla dina ko delloo siluwaat ci barke alquran euh, waxtaan wi nag ñëpp a ngi ci am na mbokk ñuy déglu te duñu ay jullit incha allahu taala dinañ leen boole ci waxtaan wi dinañ leen indil émission spéciale képp ku bëgg a ñaan lu te doo jullit lan lañ lay defal bu yàlla suñu jotaay yii di ñëw daañu ko indi wax ko ba mu leer ngeen mën koo jëfandikoo kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp jàmm ak tawféex yàlla teggil ñu mbas mi fi nekk ba delloowaat ñu ci suñu sago السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يغلدون وهم بما يسبهم مقلدون مناوهم طرعوا بلا استلاب والكل بسارس خلاب رجاهم وأقهم وملكوا في أبد ما لا يراء ملكوا بناؤهم يون وليس ينسبيل أمام بارز لذيذ منشبيل بالله آمنوا وأسلموا معه والتوسنا لوجباغ وما هو الإله وهو الرحمن وهو رحيم وله إجمال مني لا ذو حمد وشكور ذا خدمة للمشتري أفدي شكور